salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Habib Hann nekk directeur école franco arabe El Hadji Lama Ba nekk fii ci Tambacounda waaw bés bi li ko waral mooy école franco arabe El Hadji Lama Ba mooy feete fin te ñu daje fii ci camp militaire cercle mess des officiers camp Modou Lamine Dramé de Tambacounda pour organiser xale bi xale yi seen fête fin bi nga xam ne mooy tëjte seen année scolaire bi waaw yëg-yëg bu rëy lañu am yëg-yëg bi moy xalé yi ñew nañ ak mass parents d'élèves yi ñew nañ wuy suñu woté xalé yi def nañ ay différence prestation comme ni ngeen ko xamé école franco arabe école bilingue la déglu nañ xalé yi prestation ci arab ci science islamique yi jang nañ alcorane def nañ yenen science islamique yi fiqh tawhid hadith jang nañ ci lu bare bare bare toyalat nañ suñu xol ci alcorane toyalat nañ suñu xol ci nettali ñu histoire yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak jaar jaaray sahaba yu teddi yi mu nek moment bo xam bu rëy la ci ñun

kenn faatuwul kenn gaañuwul kenn amul problème kenn amul xaar ma yàlla kenn du ñun du élèves yi loolu dañ koy sante yàlla suñ toogee ci bés bi tey mbégte rek la ñu mën a am ak kontaante boo xoolee salle bi ñëpp a kontaan parents d'élèves yi kontaan nañ élèves yi kontaan nañ mais non seulement enseignants yi kontaan nañ mais l' administration l' école franco arabe ñu ngi nii enseignants yi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk administration ñëpp ñoo kontaan bég ci bés bi Je sais nga école plus de 900 élèves ont été presque mën nañ wax 1000 élèves am trois cycles prescolaires, préscolaire élémentaire ak collège nga xamné bo jëlé tay résultat euh, élémentaire de ces dernières années 100 lañuy j'ai parlé au nom du contrôle inspecteur de l'éducation et de la formation bi may dégg wala kaddu gi école franco-arabe depuis des années mi ngi def résultat ci wàllu njàng bu kenn dul man a laam-laamee man naa wax ne tey bu école franco-arabe siggee dans la région de Tambacounda grâce ak école franco-arabe El Hadj Lama parce que joué nañ ci rôle bu am solo fépp fu ñuy tudd tey école franco-arabe ci Sénégal di nga tudd école franco-arabe El la Lama Ba même temps boo xoolee résultat yi nga xam ne moom la collège bi def de ces dernières années di continuer foofu seen i cycle bi nga xam ne moom mooy euh, nu mu tuddati lycée ñi ngi def ay classe de première déwén incha allah ñi nga xam ne ñoo njëkk a ci suñu génération de l' école franco ci collège bi war nañ def en classe de terminal te filières yi gën a compliqué gën a jafe lañ nekk mooy ay SA ak LA loolu yàlla mayoon nañu euh, nu mu euh, collège bi tamit résultat cent pour cent lañ ci am. loolu yëpp nag boo dajalee l' ensemble résultat yi nga xam ne école bi mu ngi koy def sans compte IACI nga xam ne chaque année école franco bu nekkul finaliste départemental day nekk finaliste régional ci l' bi ak li nga xam ne sax mooy cadet yi loolu dafay wane ne école bi am na dimension bu mu am ci Tambacounda depuis 2012 ñu ngi wax autorité bu fi mas a nekk ci Tambacounda dinañ surtout nag ñi nga xam ne tey la ñu yore dañu war a contribuer ci jàppale école franco mooy mairie mairie bu Tambacounda ak li nga xam ne mooy conseil départemental ñoom ñëpp saisir nañ leen ci fête bi comme ni ma ko waxee sànq ci sama discours mais dafa mel ni ñoom ñëpp dañu tànqamlu te yàgg nañ ñu tànqamlu damaa xamul discrimination boobu kañ lay jeex parce que école franco-arabe bi nga xam ne plus de 900 élèves ñoo fi nekk mën ne ñoom ñoo porte soi pour jël seen doom yi dugal leen ci école franco-arabe ñu jàng seen àdduna jàng seen diine xale yooyu waruñ leen seetaan amul benn luy xew ci mairie bi ba ñu fàttaliku ci école franco-arabe nii fourniture scolaire mosu ñu jox benn fourniture nii craie même craie bi nga xam ne xale yi ñoo ciy jàng sax mënuñu ko jox. li gën a terre à rek mooy fête fin d'année bi bi ñu leen solicité ci 16 ak base wala ci 16 ak sono ñu naan programme tabaski moo leen yitteel mais école franco-arabe yitteelu leen c'est dommage loolu cri de cœur la boo xam ne tey ñu ngi koy wax mooy dama koy jëmale ci ñaari mbir mooy ci autorités yi d'abord.

vacances bi tamit dañ ci sakku parents d'élèves bi nañu gëna bayyi war xel xalé yi nañ leen gëna a ci kër yi wutal leen ay encadreur yo xam dañ leen encadrer ci biir 3 mois de vacances pour que ñu préparer l'année prochaine nga xamné buñ déllu waté école buñ am benn jafé jafé bari na xalé yu dem vacances buñ déllu waté dafa melni musuñu araf wa xalé yi nga dégg ñaari xalé yépp ci daara internat yi lañ nekkoon mémoriser nañ mais euh, science coranique euh, Eh, bakara Benas, naas 114 sourates yëpp lañu mokal bañu ñëwé ci école franco arabe ñi liñ leen defal moy tiyel leen alquran bu mu bañ a rëcc ci ñom bi nga xamné dañ leen utal ay enseignants yoo ñoo leen di suivre concours bu jot dañ leen ko organiser d'ailleurs sax ci bir mois de ramadan bi ci bir école franco arabe organiser nañ fa benn concours récital coran niveau interne defal leen ay prime te lool yëpp mu ngi joggé ko ci parents d'élèves ak administration école franco arabe defena naa yéen ñu bari ci yéen xam ngeen école franco arabe ni muy fonctionner ci biir mois de ramadan bi dañuy gën a dekkilaat alquran loolu moo tax xale yi seen alquran boobu bu ñu jógee ko ci daara yi ñëw ci biir école bi alquran boobu dafay continuer ñu koy garder ci seen bopp yi du masa réer xam nga alquran dafa sensible boo ko jàngure da ngay fàtte léegi concours yi tamit xale yi nga gis am ci koo xam ne masoon naa dem concours li nga xam ne mooy xam-xam fa trophée bu am na dem na grand prix Sénico amna fa moom it trophée bu rëy a rëy donte jëlul première mais am na fa trophée bu rëy a rëy loolu ñu ngi ñaanal école franco arabe bi incha allah concours yi di ñëw ñu mën ci participer mbindum alquran baa ngi fi récitation coran baa ngi fi dëmb rek ñu ngi doon def rencontre ak ñi doon bindi alquran xëy na loolu yëpp danañ ko gën a yaatal ci école bi filière boobu alquran bi gën a des ci biir école bi ñu koy jàng te loolu yëpp ci programme ramadan yi danañ ko gën a yaatal incha allah merci